mune señ bi mas naa wax ne yow jëmm ji da mel ne yaa ngi nii li la yàlla digal mel ne mi ngi nii ci sa kanam li la yàlla tere mel ne mi ngi nii ci sa gannaaw li nga xam ne moom nga bëgg mooy lu lay bégloo di lu lay jariñ te du lor ci genn wet dula wor itam ci genn wet lol lepp mi ngi ni ci sa jor la nga xamne nak mo ngay ragal di bañ mu lay naqari di lu lay lor di lu lay wor da melni mi ngi ni ci sa chamoy señ bi ne le nga xamne mom nga bëgg moy lu lay jariñ te dula lor te dula wor jërta ñoddi jërta gobas saxal rek ci ndigal bo saxé ci ndigal lolé mu ñëwal bop ne la dan ne la man kat kuy jëf ndigal rek lañuma bolél mu ne lé nga xamné mom nga aragal diko bañ mu lay naqari tay waraka lore bo dé daw lu yalla téré rek lolé dalay wax ne la jarul nga dima dawaka geesu man kuy xëtt ndigal rek lañu ma booleel boo bëggee ñor di lee nga bëgg toppal rek ndigal boo bëggee dàq lee nga ragal moytul rek tere yi mu daaneele iyaaka yow yàlla rek na la nuy jaamu wa iyaaka te yow yàlla rek nastaayinu la nuy sàkkoo dimbandikoo